bi ñu demee ba 9 heures fekk ci la ko Macky Sall bind message na ko Mimi ndax mën naa laa woo Aminata Touré na ko mën nga maa woo ci la ko Macky Sall daal di woowee koy wax na nag yow laa digoon ngir na nga jiite assemblée nationale waaye nag dañu koy soppar ñi Aminata Touré na ko waa baax na Mimi nag nee na lépp nag li ko waral mooy ñàkk ànd gi mu ñàkk ànd ci ñetteelu mandat Macky Sall moom Mimi ndax nee na su àndoon ci ñetteelu mandat jamono ji mooy nekk njiitul assemblée nationale waaye moom Mimi nee na lam ca na ko ndax 2012 Mimi Touré ak ci ñett ñetteelu mandat Abdoulaye Wade ba am ci fukk na ba ñooñee man maa bindoon conseil des droits nan laa mën a wëlbatiku maanaam di jàppale Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat loole mun ta nekk te Macky Sall moom ci boppam 2019 mi ak ci bitim réew fenn fu nekk wax na fa ne 2019 bu ñu ko nekk ñaari la ak mandat bu mujjoo Ismaïla Madior Fall mi nekk ministre justice jamono ci maanaam wax na ko ba tey juridiquement moralement maanaam ñetteelu mandat Macky Sall mun ta nekk waxi na Touré la te nag ñi nga xam na ñooy sénégalais yi lu ñu nangu lu toon Abdoulaye Wade 2012 nan la ñu ko mën a nangulee Macky Sall 2024 Aminata Touré nee na Macky Sall ci boppam 2024 lay jóge ci bopp réew Sénégal Macky Sall quittera le pouvoir en 2024 Sud Quotidien Aminata Touré daat nay libéré wo ci biir Benno Bokk Yaakaar yéen a kaay gi di Les Échos Aminata Touré nee na xelam jamono ji manque ci élection présidentielle a kaay gi di Rewmi Quotidien Aminata Touré léegi nag nekkatul ci Benno Bokk Yaakaar la bokk waaye nee na député non inscrit moom Aminata Touré jamono ji nag génn na ci Benno Bokk Yaakaar loolu nag dina mën a indil kàllankoor yu bare bari ñi nga xam ne ñooy waa Benno ndax mën nañoo wax ne Benno Bokk Yaakaar amatuñu majorité ci biir Assemblée nationale mbir yi nag ma ngi gën di gëllugóose di compliqué ci Macky Sall ginnaaw Aminata Touré ak Abdoulaye Baldé ñi mu àndala jigéen ñi nee nañu ko Abdoulaye Baldé génnal ci Benno Bokk Yaakaar ndax Macky Sall respecté wu gi na Macky ne jamono wax ji nga xam ne waxoon na ko fi fi mu dafa war a joxe nag exemple bu baax Macky Sall dafa war a joxe exemple baax daal di nag respecté li nga xam ne mooy constitution bi waaye nag Macky Sall tamit dafa war a respecté kàddoom maanaam respecté sa parole Macky Sall dafa war a respecté Sénégalais yi nga xam ne jox nañu ko lépp kàddu yu Aminata Touré la ba moom Mimi Touré nee na nag Macky Sall na ko lenn 2024 lay jóge ci bopp réew Sénégal yéen kaay gi du source Abdoulaye Diouf Sarr moom nag nee du nekk dërëm la moom Abdoulaye Diouf Sarr nee na 2024 bu Macky Sall tànnee ab candidat maanaam ab ma moom dina jël ay décision yi yoo xam ne maanaam yu personnel lay doon waaye yu libre lay doon ak yu indépendante yéen kaay gi de la refet quotidien xëy di ñu xibaar naan ñoo Aminata Touré jamono ji jaxase na carte waa Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi de sa ñu xëy fekk fa na fi Diallo bu Parti démocratique sénégalais nee na Aminata Touré manipulatrice waaye nag Aminata ñi nga xam ne ñoo fare ca diwaanu Kaolack bokk ci nee nañu bëggatuñu gis Aminata Touré maanaam ci diwaanu Kaolack yéene kaay gi du l'Observateur xëy ci Kalifone Sall mi ci wàllum viol benn xale bu jigéen bu tudd Adja Jare Thiaw moo ko tuumaal lu jëm ci wàllum viol gendarmerie bu Wakaam tey jii dinañu leen dégluwaat ndax dañu leen a convoqué journal nag am na benn seede bu jigéen boo xam ne moom nag dafa gën a dugal ki nga xam ne mooy Kalifone Sall ndax li ñu koy tuumaal xale bu jigéen bi nee na Kalifone Sall defoon na ko ko yéene kaay gi du sunu làmb xëy duñu xibaar na ñu choc des lébaux combat lagro